xam naa ñoo ngi lay fay bu di kontaan ci yéen. bëgg nañ ci lool fay nañ leen baax nuyu àddina nuyu fan su waal yëpp. Hmm. képp fan su waal nekk rek ñoo ngi lay nuyu di la sargal di la kàkkatal ñoo ngi nuyu ñëpp incha allah. président Wally Family. waaw may wax président Wally Family international. Hmm. lan moo waral ngeen organiser tey journée euh, Wally euh, Wally Family fii en fait dañuy euh, dañuy def journée soirée Wally Family bi mooy sunu troisième édition. su dee bi ba ñu sargalee ko Papa Thione. sargale ko Pape Thion benn nouvelle lu wàcc léegi ak Waly Balago Seck Waly Balago Seck ne jënd na ticket yëpp offrir na soirée bi waaw moo tax boo xoolee sax moo tax léegi ñu ay sax ñu arrêté waat vente yeeg genre yi ndax nouvelle bu ñëw léegi la ñu kontaan ci loolu képp fu fan si nekk na nga ñëw ñu soirée fu soirée bi. Ah, Waly Seck moom moo jënd ticket yëpp. waaw. léegi ñoo xam ne ñoom ñoo jotoon na fay seen actuellement. ñu joroon fay seen xaalis ndax li lu génn la léegi ndax suñu restant ticket tamit dañ koy jël dajalewaat ko mooy loolu. ok mais moo la poussé lan moo la poussé ngeen organiser événement bi carrément. waaw lu ñu poussé ñu organiser événement bi on fait que chaque jour Wally euh, famille dañuy def sargal Papa Thione ndax ñëpp gis nañ Papa Thione nu mu dundee ak waa Wally famille moo waral ñu def soirée sargal Papa Thione waaw soirée bi dañ ciy sargal cent pour 100 Papa Thione tey tamit comme que dañuy def chaque fois dañuy organiser soirée pour gagner ay fonds yoo xam ne mooy suñu social yi ñu defar suñu bopp ndax ku but bu ñu jógee mooy kon Wally lu mënul def ñun waa Wally famille ñu def ko ci terrain bi maanaam xam nga Wally bu génnee di def yenn social yi fenn day metti mais par contre ñun bu nekkee mën na nañoo dañuy wàcc def ko à euh, kenn te du am problème quoi daam jaay. Euh, voilà soo xoolee man bokk naa wàllu famille Guédiawaye wàllu famille bu njëkk ba. Mhm. en 2011 yooyu quoi. ba léegi yow yaa ngi taxaw jàpp rek taw a bàyyi. moo lu poussé ba nga maintenir ba léegi. waaw waaw ba xam nga wax nga ko léegi ba ñu bëgg waale 2009 ay élèves la ñu woon dem ba instant yi peut-être ay chef d'entreprise ah judd ci ñi nekkoon ay élèves ñëpp pratiquement léegi ñëpp ay chef d'entreprise lañ. ay entreprise yu bari ñoo xam ne su ma ko doon lim ñu bari laay lim ñëpp Wally Family lañ génnee mention spéciale à Wally Ballago Seck ba ñu xale lañ ko bëgg. màggal moom moo tax man mii je suis di maa ngi sama job nice mais yàqalu ma dara wax fu dee malgré jot amul ñoo ngi ci kërti kërti moo tax voilà soo xoolee début bi naka bokk Wally Family si da doon nëbb quoi ne Wally Family laa bokk parce que temps yooyu Wally Seck. Mhm. kay dañ ko doon critiqué de trop. Mhm. doon sol polémique bi quoi. mais dafa mel ni léegi waa dafa dem ba nekk eh, eh, eh, fierté nationale léegi. waaw non boobu euh, jamono moo ko laajoon. xam nga nit fekk ngay ngay màgg rek lu bëri day changé jamono moo laajoon loolu ndax boo xoolee jamono ji Wally mu ngi ci beneen level mu ngi ci level international. waa jamono tamit te doo ñëw ci dëkk gis ñëpp di sol <laughs> mooy loolu daal. Bam promotion taxul ba. waaw voilà ok. waale euh, bi yéen yéen yéen wuy ma da ngeen ko yàgg a gëm. waaw boo ko nit ba léegi yaa ngi ko. gëm ko yàgg ñoom Mamy mhm. ah, loolu moo am na moom. loolu moo am na mooy lu ma la wax léegi rek. léegi soo xoolee Wally Seck présence Wally Seck sur la scène musicale bi. Mhm. noo ko mën non euh, pour te dire vrai ñun pareeguñ ci Wally Ballago Seck. pareeguñ ci Wally Ballago Seck. bi. fa dina ñëw Sénégal ñu doog am jàmm. waaw mais soo xoolee temps yi problème bi dafa judd daal Wally Seck Pape Diouf. non loolu moom wax fa dëgg ne yàlla je ne te cache entre euh, euh, ñoom ñaar. ñun duñ ci dugg. ñun waa Wally famille dañ ci neutre ñun Wally Seck moo ñu ñor ak avancement Wally Seck luy avancé loo Wally Seck la ñu xool xooluñu ki la moog diw la moog lii non ndax ñun jàmm la sekk ñëpp ñu jàmm lañ sekk ñëpp. de passage may nuyu waale Demba War président waa euh, président fan Pape Diouf ndax ñun ñëpp dañuy déggante dañuy jokkante kon bu gaa yi nekkee di wax peut-être ne mais ñun ñun suñu biir xamante nañ daal wax fa dëgg neex yàlla. voilà nga dem a. Ah, ok waaw ah, merci yaa gis téléphone baa ngi sonné rek ok merci.